Euh, yi euh, daje final ma fàttali leen ni euh, final bi mu ngi dox ci diggante macha allah équipe bi di ASC Bokk Jom bu Jaayaan ak Demba Jeex bu Mbaaleen Euh, bokk jom bu jaayaan ak dem jeex bu baaleen ñoom ñooy finalu euh, gis ngeen euh, ci stade bi nga xam ne mooy stade inaugural muy journée inaugurale xew fii ci stade municipal wala terrain municipal bu jaayaan ñu inauguré ko tey ubbi ko ci kanamu monsieur le maire Talla Diagne waaye final bi tamit ñu parrainé ko ki nga xam ne mooy monsieur le maire Talla jaañ macha allah gis ngeen public bi rek ni ñuy ñëwee public bi ñëw bari lool macha allah lii mooy wane ni. jeunesse bi soxla woon na ko waaye son jeunesse bi euh, sawar na ci macha allah ni nga xam ne euh, moom mooy euh, liggéey bu am am solo. Take me out, ndox yi ñun bu ñu ñëwee jaayaat xam naa rek ndox yi tey man maa la fekk si nga déplacé wu ñu jëlee ba Dakar ñëw waaye jëmmi taal moo tax ma

l'équipe de Diayane et celle de Mbalène ñu xam ne la tey dafa ko fa waaye ku xam monsieur le maire xam ni mu fonkee jeunesse bi xam ni mu bëggee jeunesse bi xam ni mu bokkee Thiénaba xam ni mu fonkee Diayane kii nga xamante ne fi la juddoo wax ko kaddu gi utile eh, um ngi waye mbaaleen ak jaayaat ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ku mën a doon victorieux mel ni mbaaleen a gañe waaye mel na ni jaayaana gañe parce que ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ndam li gërëm la génnul gaal gi kon ñu kontaan bu baax a baax a baax. di ñaan bu demee nii yéen waa Mbaaleen am ngeen seen stade waa Jaayeen yóbbu nañ coupe la rek yéen ko bokk yéen a bokk lépp. léegi maa ngi woo président zone 10A mu ñëw. le président de 10 a mu ñëw yow la waaw comme ci jeunesse bi la ñuy adressé wu. bu ñu xaaroon benn tiir rek moo a jos bu ko waa mbaaleen dugalee soog a gañe waaw kon e ndam ndam li jeexagul de def leen ndànk dugal gañe rek a match nul ah dana waar de bu ko gool bi jàppee day ah ndam li du lee moom waaye bu ko jàppee jox leen chance ñu xool nan lay demee dañuy xool ah mbaaleen jël na coupe mbaaleen jël na coupe mbaaleen jël na waaye ñuy wax ni alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah parce que nag tey sene su Sonor sene su commune dama leen doon testé tey moo tax gisu leen fi benn sàndarma xawma ma xam ne li ngeen wax xaw ma xaw ma leen ko mais dama leen doon testé ba xam nu ngeen di def gis nga tey bu ngeen defan lenn lu lu wóote ak lii pare naa ci football parce que nag nit day am fayda nit day am fulla mais yéen yéen a bokk ndey yéen a bokk baay commune Thiénaba amul zone nord amul zone est ñëpp ñoo war a bokk ndey ñoo war a bokk bay parce que da ngeen a war a dépassé saa bu ngeen tasee di fo ay buruwe am ci ba yoon di ci am man lépp lu jëm ci coow génn naa ci mais lu ngeen bëgg te ànd ko yar ànd ko teggin lu mu laaj dinaa ko def parce que aw ma lu dul yéen amu leen lu dul man mais gis nga nit day am fulla day am fayda am na loo xam des koy dépassé te bari na histoire yoo xam ni nit moo cay dugg patoxlu ca pour am li mu bëgg mais yéen xam li ngeen bëgg nag yéen mënu leen a ci fond ak ree parce que ñun biñ ciy toll téere bii maa ko fàkk sun digganteeg mbaaleen mësul am problème sun digganteeg ndindi mësul am problème sun digganteeg kër Amadou kër Mbaye Guèye mësul am problème kon su ngeen demee ba toll ci te saa bu ngeen tasee di demante ci yoon man bu boobaa dama ciy génn gis ngeen lii nag ab joxoñ la te it ab tàmbali la tànk fi ngeen teg seen tànk teggiwu leen ko fi ma teg sama tànk duma ko teggi bu ngeen seetloo bu ngeen seetloo dama ni déglu leen ma bu ngeen seetloo 96 96 ba fii nu koy wax cere ba nekk commune rurale dama ni ba 2024 bii li ma fi def doomu aadama mësu koo def ku neex ak ku mu naqari waaye nag dama yaakaar ni yéen ñi nga xam ni fii laay yeewoo di taal sama oto yi dem cene ba yéen yéen a war a gën a gemb yéen a ma war a gën a jàppale parce que nag ni ma cene ba jàppalee noon ngeen ma war a jàppalee fii kenn waru fee mën a am axe ci match la nekk match bi tas na mais dañuy politique lii bu dul war ak politique du ma ko man kon su ngeen ma jàppaloon fan laa jëm dama ne am leen fulla am fayda bu leen kenn yàqal seen avenir bu leen kenn yàqal seen avenir ma ne lépp lu ngeen bëgg suba ba ca ngoon maa nga ca ni ma koy defee cana balaa koy dem fii man aw ma xaj ak seen Amadou Dieng wax na ko teere cere balaa jëkkee mën naa ko ñëw jaayaan mais teere ba nga laa jëkk a defar mujj teere jaayaan lan moo tax bañ ku ma jam te yéen kenn wonkul kenn waxul mais su ngeen neexan da ngeen di taxaw ni ñun ñoo ci war a am parce que ginnaaw ba Diayène la mais da ngeen a ànd seen ngor ànd ak fulla ànd ak fayda topp sama ginnaaw ba lii ñëw tey nit ki nag lu mu muñul du ko am kon ñuy sant yàlla bu baax ñuy sant yàlla bu baax aussi di julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di sant iribi euh, arbitre yi nga xam ni ñoo leen taxawu ba lii am tey di sant waa ODCAV mais di sant son bi nga xam ni moo aye tey te Amadou Dieng jiite ko Amadou gën leen a góorgóorlu gën leen a jigéen ndaw yi di di déglu seeni soxla dee leen déglu soxlay ndaw yi parce que ndaw amul lu dul soxlaam te fi ngeen toll ñu bari jaar nañ fi te dañ leen a jàppale ku ñu jàppalewul doo dem waaye nag day ànd ak yar ak teggin aussi ñu ngi sant délégation bi ma àndal di si jiital sama premier adjoint di nuyu sama troisième adjoint aussi di nuyu sama quatrième adjoint mu dëkk Mbaleen muy Amidia di nuyu Daouda Diop di ko sant di ko gërëm ci taxawaay bi nga xam ne mi ngi ci wetu maire bi waaye nag di sant sama xarit sama doomu ndey sëriñ Mamor Seck ndax nit am na loo xam su ko amee da koy xam mais réew mi fi mu toll nii waaye nag di sant mboolem ku ma àndal ci délégation bi di sant nag di beral nuyoo Mori mi nga xam ne mooy chef du village su Jaayaan tey fa mu deman sori na mais dafa sacrifier boppam pour fekke lii tey kon ngeen yéen ndaw yi ngeen war koo bàyyi xel bu baax ndax yéen a bokk dëkk yéen a dëkk muy seen kilifa ci biir di seen kilifa ci biti waaye nag di beral nduyoo xale jaayaan yi nga xam ne ñoo aye tey dikkaale ko ak seeni xarit seen doomu ndey muy waa Mbaaleen te mbay ne ca bopp ba kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm dama nit day am loo xam ne bu ko amee da koy xam gis nga secondaire secondaire aw ñal la ku bëgg a jub da jaar ci aw yoon lii nag mooy yoon wi lii mooy yoon wi maa ngi leen di ñaan ngeen tege ci lépp lu ngeen bëgg wax leen ma ko su ma demee ba tële mbaam a gàntu ngeen soog a seeti keneen loolu mooy yoon waaw ma ne bu leen eh, bu leen saboote wax ji wax buñ ko dee wax da ngay déglu ba borom daaneel nga wax sa doléance loolu moo jaadu waaw waaw bu ngeen bu ngeen dee saboté ma bàyyi wax ji bu ngeen dee saboté ma bàyyi wax ji mi ngi jëm ngeen bëgg boo demee mbaale benn doléance lay wax ndax fu nekk nekk nekk yaa ngi ca jàppale nga ne guddi ab terrain la ñu bëgg te sa kay lañ ko yaakaare. ma ma tontu la ci ma tontu la ci amul benn dëkk boo xam am nga terrain lu dul chef du village ba moo joxe toolam amul benn terrain boo xam benn dëkk benn dëkk boo xam am na terrain lu dul xale yi dëkk ba dañoo dem ci chef du village moo joxe tool. waaw léegi nag da ngeen a bëgg a jaxase ak kilifa yi ñun duñu dem dagg tool kenn yéen ku ci am ab tool yéen ku ci nekk am ngeen ab tool ci ginnaaw mbaale joxe leen ko wala ngeen dem ci chef du village waxtaan ak moom mu joxe tool bi ah waaw su ko defee nag ñuy sant aussi jigéen ñi ñu àndalal aussi di leen gërëm monsieur Diop ñu ngi lay sant. ak délégation bi jógee kees yëpp di sant presse bi di leen gërëm njàmbe ñu ngi fam nuyoo bi takke sa loxo nga joxal na ko Alpha ak El Malick TV defe naa mi ngi ñu ngi nii taxaw tey kenn joxu leen dërëm kenn lu yewu leen bëgg seen dëkk bëgg seen gox bëgg seen askan moo tax ngeen organiser lii ngeen ànd ci kon maa ngi sant ñëpp. waaye dama ni famille bi nga xam ne ñoo doon wax léegi muy waa kër Nganjaay wax nan wax bu rafet waaye dama bëgg ngeen déglu lii ma leen di wax Nganjaay bi muy taxaw ci stade bii maa moom ñuy ànd booba judduwu leen te lu ne Nganjaay def na ko fii def na ko ci dëkk bi def na ko ci terrain bi def na ko ci bokk gi def na ko ci xarit waaye li ma leen di ñaan nag ngeen teg seen tànk fa ko ngañ tegal su ngeen ko defee képp ku ngañ amal di ngeen ko am parce que nit amul lu dul waajuram ngañ dem na tey mais am na woy woo xam ne lu fay illaa yow mi diine kon stade bii ñu ngi ko tuddee ngañ Demba Ndiaye ñu kontaan ci lool di ko ñaanal yàlla fa mu tëdd yal na ko fa yërmande yàlla fekk yal na suuf woyof ci kawam njaboot gi bu bàyyi yal na ci yàlla teg loxo en tout cas daal su ma doon wax tey ba suba jeex ndax sama kontante tey am na loo xam tey bu ko guney jaan gañewoon tey duma ko sañ a wax waaye guney mbaaleen ñi ko gañe mel na ni biir jaan ñoo ko gañe mel na ni Kell moo ko gañe mel na ni Kër Amadou moo ko gañe mel na ni Ngembe moo ko gañe waaye dama bàyyi leen xel bu baax ci li def yéen a ngi xool am na at moo xam ni mbooleem équipe bu nekk commune Thiénaba wutal naa ko si de am na wala amul am ñu dem ba ca pénc mi ñu taal moyen ya mais loolu rafet na loolu respect la te kenn santu leen ko dul politicien politicien bu mënul dara politicien boo xam mësta jéem lu mu man mësta wax lu am di sarse ay xale di leen tàggale mais yéen a ngi dindi benn leen xàjjale amu fi kon nit day xool la mu bëgg muy jàmm ak salaam mu aw ca maa ngi ñaan yàlla nag seeni diggante fii ma nekk tey yàgg yàgg day jeex waaye tànk maa ngi fi lépp lu ngeen soxla dinaa ko def yéen nag yére ma ma fi ne mën a teg yére fi mën a jële su ngeen ànd ak man ca kanam su ngeen ma wanee ginnaaw keneen ñëw damay politique nag il faut ma wax sama soxla dama ne awma lu dul yéen amu leen lu dul man teyit nag doo fi gis kenn koo xam yëkkati na fi lu am solo du dul élection daa jot bu élection jote kat kat yi dugg ci réew mi kenn ku ne la nga dajaloon doon ko denc nga génne ko man nag li ma am maa ngi koy bokk yéen kon ñu ngi leen di sant bu baax aussi ñu ngi leen di gërëm euh, di sant bu baax nag di dellu sant bu baax waa ODCAV parce que jàppaleen léeg-léeg ci biir ak ci biti Mambay gën gën lay góorgóorlu Amadou Dieng gën gën lay góorgóorlu parce que nit ëpp dara ëppul ñu yëkkat bàyyi ñëpp am lu ñu yëkkat teg ci sa yaay jaamu nit ñi loolu ngeen war bu leen bëgg dara bu leen soxla dara bu leen geestu bu leen tontu maa ngi sant ñëpp maa ngi gërëm ñëpp di ñaan yàlla ñu dajawaat ci beneen stade wala bu déwénee ñu am lu ëpp lii li ngeen diis dégg nañ ko yàlla rek am na ko yàlla mi ko am nag yàlla na ma jàppale ba ma boole ci tribune bëgg naa tribune Thiénaba bëgg naa tribune Bangaaj mais bëgg naa tribune Jaayaan te dinaa ko def nag tant que yéen a sama ginnaaw dinaa def fii tribune kon defe naa ni wax du jeex mais def koy dagg maa ngi sant ñëpp maa ngi gërëm ñëpp kon ñu joxe coupe bi kon euh, mu ngi noonu capitaine bi nga xam ni allo allo allo allo allo allo allo allo waaw capitaine bi nga xam ni moom la ñu moom mooy jël euh, jeu de maillot bi bleu et blanc ak ay euh, ba ak aussi ak ballon ak benn enveloppe bu cent cinquante mille francs par monsieur le maire Talla Diagne ngeen tàcc ko kon ñu laaj euh, capitaine bi nga xam ne moom moo gagné muy capitaine u Mbaleen capitaine Habib waaw ñu may ñu tuuti ñu may ñu tuuti dafa guddi capitaine nu Mbaleen waaw bi nga xam ne mooy championnat champion zone 10 à 10 de l' année 2023 moom la ñuy jox docteur Daouda Diop euh, c' est un maître conférencier professeur à l'université de dakaar di accompagner monsieur le maire moom moo koy jox euh, jeu de maillot bi ak euh, ballon bi euh, maillot bi rouge blanc la waaw mu ngi noonu waaw rouge blanc allo allo DJ may ñu ko na ba pare DJ voilà mu ngi noonu kon jox nañ ko jeu de maillot ak enveloppe enveloppe de 200 000 francs offert par monsieur le maire Talla ngeen tàccu kon li ci des mooy trophée. le trophée va être remis par monsieur le maire Talla Diagne ñu déglu tuuti. monsieur le maire Talla mooy yëkkati trophée bi jox ko l' équipe vainqueur la zone 10A muy l' équipe de Mbalène. voilà muy noonu kon loolu moo nekkoon cérémonie de remise de trophée fii ci.